Allah الله الله يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قلي فكنت جاني موهبة من ما دلالناني الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني لي في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قلي صدق التجان موهبة من ما دلالناني الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان Sadj euh, coordonnateur des îles du Saloum waaw. waaw jërëjëf euh, dinañ kontaan pour wax ko ñun ñoo ngi dëkk ci île bi ay ñoomi séeréeru ñoomin ka lañ mënuñ jaar fenn lu may ci gaal ñetti commune la nag commune euh, waar commune baasul ak commune Djirnda dañ soriante am na ñoo xam ne 10 heures lañ jon waar ak Niodior pour ñoo mën a bokk ci convoi bi 10 heures ci guddi dinañ embarqué am na ñu def 6 heures am na ñu def 8 heures de temps ci waaye loolu nag duñ ko yëg ndax xam nañ ki ñuy fekk si moom mooy kan mooy Maulana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima moom moo ñu nampal lii moom moo ñu nampal bëgg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li bàyyi wax ne lii lim ko amee nag bi fadli ilahi naasi jalla jalaaluhu wa hubbu rasulillahi taaha nabiya yàlla may na ko de waaye mu ngi ko amee ci buntu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi waxoon ne fa suratu Ibrahima tabqa tabqa tasakura gis ngeen ko nii mbooloo mi lii lépp bàyyi moom moo ko liggéey liggéey ko ci biir ñoomin kay ndax sëriñ dafa am fu mu lay jëlee ak fu mu lay yóbbu bàyyi na fi mu jëlee génn nañ ci lëndëm indi nañ ci leer waaye fekkoon na ñu nekk ay faqiir mu def ñu ay risaas kon ñu ngi ñaan yàlla fekke woon nañ daaw fekke nañ yàlla nañ fekke ay déwéni déwén ci barke alquran barke salaatul fatihi euh, am nañ 46 pirogues ci ñett yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu si démb ndax gaal yi am na yoo xam ne mun na ay biis lañ mun na yóbbu 100 personnes am na yoo xam ne ay mini car lañ am na ku nekk rek ngay bànneexu pour mën a yóbbu sa gaal mesure sécurité yi maa ngi si ñaari anam ñu ngi si ndax gilet loolu yëpp jël nañ ko euh, ministre de l'intérieur yónnee nañu ay gilet ñu séddale ko ci biir dëkk bi boole ko ñi nga xam ne am mesure barrière itam xanaa li may wax ni moom moo tax soluma masque waaye maa ngi soo masque te itam dama dama vacciné wu. xam ko damay bëgg circuler nit ñi dama dama vacciné balaa ñu may laaj sama vaccination loolu yëpp def nañ ko sensibiliser nit ñi ci biir euh, kii bi. Hmm. jërëjëf macha allah jërëjëf يا الله الله وما يحب

ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني قلي صدق تجاني موهبة من ما دلناني الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني ñëw naa ñu dem Medina Baay man sama man sama xol mooy Medina Baay waay sama xaalo Medina Baay man sama xol bi Medina Baay waay dëkkëb nga neel be Medina Baay baay yàlla la tànnal Medina Baram xoolal jumaa je Medina Baay Medina Baay Medina Baay man suma meree sax suma fa duggee ree ndax sama xol mooy Medina Baay. Allah Allah Allah Allah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 moo ko tax a jóg